alors fi ngeen koy dégloo ci émission ban jaaxle comme ni ma leen wax waxee woon ca njëlbeen alors dañ fi am kuréelu Hadiyatul Rahma di kuréel buy yëngu ci social ci biir immigré yi adressé nag benn problème boo xam ni yàgg nañ ko gis ci sunu biir communauté bi muy indi ay tolof tolof ay coono yu bëree bëri saa yu fi amee muy nit ku wàcc àdduna alors am ci nag ci ci biir ci sunu biir ñoo xam ni xalaat nañu ba teg solution bi solution bi nag depuis ay années mi ngi fi léegi di hadiyatul rahma imagineel you know benn soixante quinze dollars ngay fay assurer sa famille bi yëpp bu yàlla ñaanuñu ko yàlla kenn gaañoo ci famille bi hadiyatul rahma ñooy fay billet ñooy organiser transport julli bi ñaan yi you know fayal benn accompagnant billet am sax defe naa am na xam naa dinañ ko préciser tulaar benn ndàmpaay bu ñu lay joxaale alors ñu new mbir mi nag du du tàggoo dangay nit ñi war nañu fagaru nit ñi war nañu moytu aussi indignité wu ñu lay yalwaanal pour yóbbu sa koor waaw loolu vraiment kuy gor ku ne war nga ko éviter jël benn soixante quinze dollars fay ko hadiyatul rahma couvrir sa famille année bi yëpp lu ci mënta xew hadiyatul rahma dinañ la taxaw soixante quinze dollars nag.
soixante dix dollars sëñ Modibo soixante dix.
soixante dix dollars. ñu defal lépp waaw mbir mi nag mi ngi noonu kuréel googu laa fi indi tey jii nii xam naa ni lu may def rek mooy tàmbale ko ak benn audio incha allah defe naa ana ana ana pièce bi loolu gis na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدية الرحمن هدية الرحمن هدية الرحمن ñu indi loolu ñuy wax social di dimbalante ci sunu biir waaye nag teg ca ni bari nañu fa daan jóge fekk di wuyu sunu borom jafe-jafe yu bari trop ñu wëlbatiku mbooloo mi xalaat ba génne li ñuy tudde hadiyatu rahma hadiyatu rahma jooju ku ca bokk bis boo bis bu yàlla dogalee la muy dogal des na ko toppatoo des na ko indi ci sutura ci mu gaaw ci delloo ko ay bokkam ñaanal ko fa ñu ñaanal ko fi loola di nooflaay boo xam ni Sëriñ Tuubaa rek a tax nu mën ñu di ko ci sant bu baax di la ko séeréel asalaamaaleykum wa rahmatullah Mbaye Diop New York am mbégte rek di dellu si ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu bokk muy Hadiyatu Rahma muy liggéey bu am solo boo xam ne ay taxawaayam ak i résultat am ñu bari mën nañu ci seere ni ñu koy defee at mu nekk bu ñu tollee ci registration yi maanaam mbindu mi bu ubbee ñu ñëw ci rajo bi di ko yëgle ak di ko fàttali kon nag mbindu mi tàmbali na registration bi ubbi na rawatina nag fii wet wet gi nga xadee fi laa féete man muy wàllu New York ni nga xam ne noonu laa ko daa defee ci at yi weesu yëpp di jàppale képp ko xam ne bëgg ngaa registre bëgg ngaa bindu ma mën laa jàppale ba nga mën registre ni nga ko bëggee kon may ñëw rek di feddali loolu ndax ñu baree bari fi ne bu ñu dégloo bu ñu déggee suñu kàddu ci rajo bi ñu bari question bi ñuy laajte rek mooy naka laay def ba mën a bindu naka laay def ba registre kon nag ma di leen xamal ne question boobu yàlla dogal na solution am na ci saafara am na ci ndax képp koo xam ne jokkoo nga ceeg man incha allah danaa la taxaw ba ba ba nga mën a registre danaa la taxaw incha allah ba inscrire la comme ni nga ko bëggee waaw kon nag ñëpp ñi nga xam ni bëgg nañoo jokkoo ak man rek mën nañ koo jaare ci sama numéro 917 714 4491 917 714 4491 waaw képp koo xam ne jokkoo nga ak man ma di la ñaan bu fekkente ne jotoo ma it nga bàyyil ma message incha allah fu mu njëkk a jàppandee rek danaa la woo danaa jokkoo ak yow danaa la taxaw ba nga mën a registré ni nga ko bëggee am na sax ñoo xam ne fi mu ne dèjà dégg nga jot nañoo jokkoo ak man ba ma registré leen waaye nag ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñoo ci ñoo ñoo bëgg a jokkoo ak man it ñu xam ne kon ñoom ñëpp bu ñu ñëwee rek incha allah danaa leen taxaw ba ngeen mën a registre ni ngeen ko bëggee ndax yàlla dogal na at yi yëpp mbooloo mu baree baree bari ci sama loxo la ñuy jaare maa leen di registre maa koy topp ba seen dégg nga seen membership génn yooyu yëpp ma topp ko ba ba mu tegu ci seen loxo kon nag ñu ko daan defee rek at yi passé yëpp
émission ban jaaxle émission spéciale ñu jagleel ko euh, kuréel boobu tudd euh, hadiyatul rahma lan mooy hadiyatul rahma defoon nañ ko fi daaw euh, danañ ko def ren yàlla nañu yàlla may ñu teewee ay at yu bëri di ko fi def di leen ci yee du ma def rek du dul jébal kàddu gi euh, euh, sëñ Mbàkke Cuun euh, sëñ Mbàkke bismillah
waaw kay auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama tasliman salli wa sallim ala almukallim wa du'i ashim wa sunyaari assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi yëkkati ay kàddu di yëkkati di nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi ca may ko jàmm ak wér ci nekk noonu ñuy nuyu jëwriñ sunu jëwriñ ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci diaspora di sëñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Murtada moom it di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi ca defal ko jàmm di nuyu it jëwriñu fondation Cheikh Ahmad Bamba sëñ Modiba yaa ngi koy wax soo ba tey xëy na programme bi dafa dekk ci programme boo xam ne ci programme fondation Cheikh Ahmadou Bamba la FONCAP fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America di FONCAP ca jëwriñ ji di Sëñ Fallou Samb kon tey jii ñoo ngi ñëw waaye waxtaan wi sax xëy na audio bi nga njëkkoon a teg audio bi dafa xawoon a tengal ëpp ak beneen audio bi bi nga teg wax ji dafa xawoon a manqué tuuti ndaxte kàddu yi nga xam ne moo ñu gën a ñor di kàddu yi Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa daw ci audio bu njëkk boobu mel ni da nga ke dañ cee yëggagul waaye tey sax plateau bi nga am Modibo dafa porte parole fondation bi dafa ñëw ànd ak ñun débat bi moo koy jiital muy sa frère di sa xarit El Hadj Modou Keita Thiam muy fii mooy jiite waxtaan wi tey di di di di baatu fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America di état yi ne ci Amérique bi quarante état quarante chapter ak Canada kooku ñooñu sëñ Mamadou Koyte Thiam moo yor kàddu googu waaye nag ñu ànd ak sunu jigéen di sëriñ ci ñun di soxna Xadi Sàll mi nga xam ni baat moo yor baatu jigéen yi nga xam ne soxna yi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi ci fondation bi mooy kilifa soxna yi ne ci fon- fondation bi waaye moom it di kilifa ndaxte day deretu Cheikh Al Xadim di sët ci maam Thierno Birahim Mbacké kon daanaka kàddu ubbi gaa ngi noonu xanaa damay bàyyi kaddu gi ci ak El Hadj Mamadou Keita ci am waaye sëñ Modou ba dañ doon sàkkuwaat nga ranalaat nu audio bu njëkk bi nga xam ni sëñ Mouhamadou Mountakha wax na ci kaddoom yooyu mu nekk suñu ubbite waxtaan kon sëñ Modou boo nu mënoon a dawalaat audio bu njëkk bi bismillah
mu nekk ubbee ubbeeku waxtaan bi bismillah insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدية رحمن هدية رحمن هدية رحمن ñu indi loolu ñuy wax social di dimbalante ci sunu biir waaye nag teg ca ni bari nañu fa daan jóge fekk di wuyu sunu borom jafe-jafe yi bari trop ñu wëlbatiku mbooloo mi xalaat ba génne li ñuy tudde hadiyatu rahma hadiyatu rahma jooju ku ca bokk bis boo bis bu yàlla dogalee la muy dogal des na ko toppatoo des na ko indi ci sutura ci mu gaaw ci delloo ko ay bokkam ñaanal ko fa ñu ñaanal ko fii loola di nooflaay boo xam ni Serigne Touba rek a tax nu mën ko nu di ko ci sant bu baax di la ko séeréer.
na na na na na nanuy nanuy jéem a xam rek sëriñ bi nanuy jéem a xam rek sëriñ bi
di ko jéem a nag dund di ko jéem a nag dund
luñ ko gën a xam luñ ko gën a xam gën ko mën a dund gën koo mën a dund
te luñ ko gën a mën a dund te luñ ko gën a mën a dund gën a jege suñu borom gën a jege sunu borom
gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a mën a liggéeyal yonent bi gën a mën a liggéeyal yonante bi xam sëriñ Tuubaa dund ko loolu rek la jël xam sëriñ Tuubaa dund ko loolu rek lay jariñ ndax waa ji dafa dafa dafa ci mënut a ñàkk a yëngu waaye li nga wax doy nuru ma ci war a doy.
wax wax ji dama ci mënut a ñàkk yëngu waaye li nga wax doyoon na.
la la ma ci doon daal.
doy la ma ci doon doy nii nga ko waxee ñu bind ko mu di téere mu ne la ko ci doon doy nii nga ko waxee ñu bind ko mu di téere ñu tasaare ko ci àdduna ñu bi tasaare ko ci àdduna bi day yëpp répp day répp jot de.
dayre yëpp jot ndax ndax dara li li li li li sëñ bi bëgg lépp ndax li sëñ bi bëgg lépp lépp ñu ngi ci biir mi ngi sa biir wax ji
dara dara gën gënul wax dara génnul wax ji di sant yàlla di gërëm di soññ suñu mbokk taalibe yi ci fondation ak njëriñam pastéefam ak taxawaayam ci néew yi nga xam ne moo di bismillah moo di dañ ci wàll yàlla waaw kay kon daanaka oh, kàddu yooyu xëy na ci ci ci conclusion bi euh, euh, porte-parole fondation bi euh, El Hadj Modou Keita Thiam moo moo demoon ci kanamu Cheikh Modou Mountakha doon ko wax liggéeyu fondation bi ba ñëwoon ci Hadiyatu Rahma Euh, sëñ Mountakha am kàddu yu mu ci teg kàddu yooyu moo doon euh, ay kàddu euh, rafetlu liggéey bi ñuy def kàddu joxe sax ndigal ba ni liggéey bi el- eh, moom sax li ko ci gënaloon mooy ñu def ko ci ay téere bind ko def ko ci ay téere tasaare ko ci addi addina bépp loolu la waxi ki fi nekkal sëñ Tuubaa wax jëmale ko ci liggéey bi waaye kon sëñ Modou ñoo ngi lay sant ci dalal gi nga nu dalal at mu ne nga defal ko an may nu euh, temps bu doy ñu ñu ñu waxtaan euh, leeral nit ñi déglu ay ay témoignages yu jëm ci liggéey bi nga xam ne fondation Cheikh Ahmad Bamba of North America moo ko indi euh, pàcc bii di pàcc Hadiyatu Rahma di nekk euh, loo xam ni rapatriement wu nit ñi nga xam ne ñoo fi bàyyikoo la kon bala maa guddal du ma def lu dul bàyyi kàddu gi ak ki nga xam ne tey mooy sunu euh, njiit ci waxtaan wi di Cheikh Mamadou Keita Thiam ama ànd ko Xadi Sall waaye di nga dégg ci waa ci waa réew mi ñu bari ñoo xam ni dund nañ ci Hadiyatu Rahma da nga dégg seen i testimony ci biir émission bi El Hadj Mamadou Keita Thiam bismillah
ñu koy sàll jóg yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
wa aleykum salaam
Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci turu fondation Cheikh Ahmad Bamba du North America ak Canada di sant yàlla sunu boroom mi nu may nu fekke al ko te ànd ak wér fas yéene rek noonu ko sëñ Mbàkke waxe àndaat ak yéen ci loo xam ni daanaka at mu ne ñu def ko li ko waral nag mooy liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi loolu la fondation bi xool ni nit ku ne la ñuy dund mu di ay jafe-jafeem xel ma ko yàlla jox da ko war a utiliser pour xool nu muy def ba jafe-jafe yooyu mu indi ci ay saafara te leer na ñépp rawatina ñi nekk Amérique ni loola moom mbokkum taalibe mbokkum jullit mbokkum sénégalais mu fi mas a wàcc liggéey bari nañu ay jafe-jafe ci delloo ko benn koom nga du fa ne muy alal ji ko war a yóbbu ñaareel ba loola dana indi mu yàgg ci morgue yi ñetteel ba loolu dana def frustration ci ñi nga xam ni ñooy ay bokkam ya nekk ca Sénégal jàppoon ni kat seen papa mbaa seen yaay mbaa seen sœur mbaa seen frère mbaa seen borom kër mbaa seen soxna mbaa seen doom di jóge woon ca réew ma ñëw fii ngir di wut loo xam ni dana mën a yor boppam dana mën a teral ak njabootam ñooña dañu doon xaar seen mbokk moomu delsi ak ay teraanga delsi ak ay xéewal waaye yàlla mooy dogal bu yàlla dogalee loola am kon la nga xam ni moom lañ leen mën a faye ngir defal leen ndax tiis wa ñu am mooy fexe bañ teel a jot seenu néew loole nag ci la ad ci la fondation Cheikh Ahmad Bamba xalaat liggéey ci liggéey bu sérieux boo xam ni comité yi nga xam ni ñoo ko séq moo la koy won ndax hadiyatu rahma conception bi rek boobu ne dafa am sens te dafay renvoyer ci ab réalité hadiyatu rahma hadiya kenn ku ne xam na ni ngën gi mbindiif di yonent sallallahu alayhi wa sallam du lekk sarax hadiya lay jël kii ko fi wuutu di xaadimu rasul moom it hadiya lay jël ña koy séq ak moom di ay taalibe di wut ngërëmal yàlla lañ koy joxit hadiya lay doon kon muy loo xam ne lu am solo la ci buñ ko toppee ci histoire am ak léppam waaye ana la ca topp mooy raxma raxma di yërmande yoo xam ni sunu borom da ko boole mbooleem mbindeef yi ajiwul ci nga nekk jullit ajiwul ci nga nekk leneen waaye dès l'instant que mbindeef nga rek sunu borom warlul na la raxma muy ndimbalam loolu moo waral hadiyatu raxma moom it nangu ni lii kat du mbir moo xam ni mbiru murit la wala mbiru tiijaan la wala mbirum xaadir la waaye mbirum doomu aadama la waaye comme nag aussi sunu ancrage ci àdduna muy sunu muy muy muy sunu situation géographique ñun ay africain lañu waaye ñi ko concevoir it ay taalibey Serigne Touba lañu kon Sénégal lañu dëkk moo waral fu ñu amee ku mu mën a doon te jóge fi tañ toppatoo ko des na ko yóbbu ba aéroport bi nga xam ne moo nekk Dakar di Blaise Diagne kon li nga xam ni moo waral lii lépp te ma junj ko moom laay bëgg rek bu ci kanamee sëñ Mbàkke Cuun ñëw ci muy historique gu hadiyatu rahma bu ko defee bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki sénégalais yi bokki africain yi daañu xam lii fan la jaar ba mën a agsi fii ba nekk un produit boo xam ni produit bu ñu mën a consommer la ni ko ni ko nit ñi di waxee sans danger te dana nekk loo xam ni it njëriñ la lu àndul ak benn lor ñu ngi nuy signalé ni sunu jigéen di dereti sëriñ bi di soxna Xadi Sàll te Atlanta di jàmbaar lool ci liggéey bi moom it jiite women committee bi nga xam ne moo nekk ci Amérique ak Canada moom it mi ngi ci ligne bi bu ñu paree ak sëñ Mbàkke incha allah daañu dugal soxna Xadi waaye Modibo ñoo ngi lay sant di la gërëm xam naa da nga ni grand bi moom at ba at rek benn yoon la ci la fiy feeñ waaye noonu la demee su ko defee léegi daañu amit ñi nga xam ni te it moom lañ gën a bëgg sax muy ñi nga xam ni ñooy ñi nga bénéficié wu ci hadiyatu rahma moo xam seen i bokk moo xam seen i xarit moo xam seen i dëkkandoo ñooña daañu indi seen i témoignage ndax loola te la ñuy natte ñoom ci seen i témoignage jéego yi nga xam ne hadiyatu rahma dox na ko ndax am na réussite ndax am na lu des ndax naka la ñu taxawee ci seen i cas su ko defee loola it dana nekkaat loo xam ne dana mën a aiguillonné ñi nga xam ne ñooy fondation bi ñu xam lu ñu war a dolli ak lu ñu war a fu ñu war a gën a focus ak loola lépp kon ñooñu it seen kii def ci am solo kon moo di ba boo ñu ko permettre rek ñu dugal sëñ Mbàkke mu dem ak ñun ci historique gu Hadiyatu Rahma jërëjëf.
waaw kay jërëjëf El Hadj Modou Keita Thiam waaw xam naa ni historique bi du ma ci gudd ndax pratiquement bi nga sa introduction rek dugg dugg nga ci lu bëree bëri da ci historique gu Hadiyatu Rahma yaa ngi koy wax léegi at min koy njëkk a defee at moomu at ma ko jiitu yàlla dafa def li fi wàccu liggéey ci mbokki taalibe yi yi nga xam ne indi woon nañ ko ci comité social fondation bi xaw naa jege ñaar fukki nit sans exagérer lin nu fi woo ci yooyu jamono ci dinu wax nit koo xam ne dafee occub liggéey ñu war a toppatoo nu mu koy def defee ci nu koy eh, nu- ci nu ñu dajalee koom ba yóbbu ko xawoon naa jege ñaar fukki nit eh, buñ ko musaan indi ci comité social ñun waa social ñoo daa jóg toppaat daayira yi nga xam ni ñoo bokk ci fondation bi jëwriñ ju ci nañu woo la wax la situation bi nan la demee loola it yàlla defal nañu ci sutura kaa bu ci musa ñëw ci ñun rek euh, jëwriñu fondation Cheikh Ahmadou Bamba taxaw nañ ci nañ ca war a taxaw duñ leen musa laaj ci lu demee noonu ñu àndi cee Pastef ba loola mat ba ñooñu fi wàccoon liggéey delloonu woon nañ leen Sénégal waaye nag ñu amoon ci jàngat ndaxte laajte boobu ñu daa laajte ñi ñu koy laaj nekkuñu benn benn jataay a- ay dëkk yoo xam ne yu sori yoo ante la euh, kon nan daa collecté xaalis foofu yenn saa yi daana jël temps boo xam ne temps bu yàgg la ci njàngat man ci amoon nga xam ni ki nga da- ki fii Musaana wàcc liggéey daana nekk fii ci morgue hôpital yi toog fi toogaay bu yàgg en général ñi ci ëpp euh, situation yooyu dund nañ ko euh, ak ñoom Euh, ñu ci noonu nag lan taxawee ni waaw ndax moom nag jot na nag ñu xalaat seet beneen pexe boo xam ne nii danañ fàggandiku ba lu mel nii di bu amatee laajte bi ñuy laajte euh, dañ ko bàyyi ci- noonu la conception Hadiyatu Rahma ñëwee ñu ni kon nan defal programme boo xam ne nan ko waxtaanee indi ko ci jëwriñ yi buñ ko waxtaanee tàmbali ko indi ko ci jëwriñ yi euh, mu ta- tàmbalee ci comité social ñu yóbbu ko ci comité exécutif fondation bi eh, ñoom it ñu jubbanti xalaat yi ci amoon yépp ak ñoom xalaat yi ñu am ñu boole ko bind ab memorandum of understanding indi ko ci jëwriñu euh, fondation Cheikh Ahmadou Bamba yi jëwriñ yi ku nekk joxe sa feedback kon travail boo xam ni travail bu concerté la travail boo xam ni travail d'équipe la ku ci ne indi nga ci sa xalaat jëwriñ yi indi ci seen feedback ñu delluwaat euh, ci comité exécutif euh, euh, seetaat lan bind ba tënku ci tënk boo xam ne biñ ko indaatee ci ci jëwriñ yi ñoom ñëpp dañ koo rafetlu ñu wéyle Hadiyatu Rahma kon euh, El Hadj Modou Keita Thiam ci gàttal historique gu Hadiyatu Rahma mi ngi noonu danoo dañ doon bëgg rek taxaw taxawaay boo xam ni bu loolu amee màjjal mu sëñ Modou baa ngi koy wax di màjjal yor di yalwaan sax la ko tuddee woon moom waaye di yor ay mbuus mbaa ngay woote fu ne di màjjal moom wax dëgg yàlla loolu moo doon euh, euh, euh, raison principale boo xam ni hadi pour génn ko fi moo doon raison principale boo xam ne Hadiyatu Rahma ñëw na euh, ñu muy muy programme boo xam ne programme bu am sutura la programme boo xam ne ñi ko séq ñëpp ay boroomi xam-xam sax yu bari dañ cee nekk yoo xam ne bu mbir mi amee ñooñu dañuy jox guidance diñu jàppale ci toppatoo ba ñuy toppatoo ki fi jógee toppatoo islaam bu bu bu leer nañ ba nan koy delloo euh, euh, ca réew ma nga xam ni fa la jóge kon El Hadj Modou Keita Thiam historique baa ngoog damaa bañ mu xóot ci loolu xëy na ponk yi nekk ci biir Hadiyatu Rahma yaa ngi koy wax léegi soxna xaj dina ci ñëw waaye alaaji kayta na nga bàyyi xel ci ñiy woote tey ñu bari dañ woote ci ñiy woote ñooñu dañoo dund Hadiyatu Rahma ca loolu moo ës ñun ñun xëy na dañuy détaillé programme bi am na ñoo xam ne tey ñoo ngi ñuy dégg te mosuñu woon a xam Hadiyatu Rahma moo tax ñu war a duggaat ci ponk yi waaye li ci ëpp solo mooy ñi nga xam ne nii dund nañ ko eh, ban expérience lañ ci am ak eh, ak lañ ci gis kon El Hadj Modou Keita Thiam fii laa yemoon ci historique Hadiyatu Rahma maa ngi lay delloo kàddu gi ba ca kanam a kanam bisimilah.
jërëjëf Serigne Mbacke Thioune mooy ki nga xam ni moo féete fële ca Philadelphie di jëwriñ ci fondation bi waaye jiite comité boobu ñu tuddee comité social te Hadiyatu Rahma nekk benn pàcc ci li nga xam ni moom sëñ Mbacke moom la jiite mu mel ni comme Hadiyatu Rahma la ñuy waxtaane tey Serigne Mbacke ñëw ak naag ñun ci li nga xam ni moo waral ñu teg ko xalaat ya liggéey ba coordination ba ba Hadiyatu Rahma taxaw li mu wax it mooy jafe-jafe yi amoon ak limu nit ñoo xam ne jóge woon nañ fi génn àdduna te booba amagul benn kii boo xam ne c'est structuré pour mën leen a jël en charge kon li ñu daan def rek mooy li fi amoon maanaam ket maanaam màjjaal ngir bëgg a yóbbu ñooñu loolu kon addiyatu rahma dafa ñëw nekk une réponse concrète pour bëgg fee jële loola te yaakaar nañu it mel na ni loolu jógeegul na fi kon soxna Xadi bu fekkente ni yaa ngi nuy dégg noo ngi lay nuyu waaye gannaaw nuyoo bi noo ngi bëgg gannaaw bi sëñ Mbàkke ñëwee ci li nga xam ni moom mooy historique bi yow it nga ñëwal nu ci li nga xam ni mooy hadiyatu rahma ci naka am na lu ci boole nit luy tax nit bokk ci am na ñoo xam ni it ñoo ci war a bokk dañ ca bokkee ba pare it am na loo xam ni moom la leen hadiyatu rahma warlul yooye yépp nag dañoo bëgg soxna Xadi nga jëwal ñu ci te soññaale sa bokki jigéen ñi nga xam ni lu ñu dugg buñ ca taxawee nañ ca bëgg a taxawee ak nañ ca war a taxawee loolee dana dem ca kanam kon soxna Xadi ñu jox la kàddu gi nga ñëw ak ñun ci point yooyu jërëjëf
jërëjëf sëñ Kayta Thiam ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñu commencé ci auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla bu baax bi ñu fekk waatee ren di julli ci Seydina Muhammad sang-sang bi yeesal suñu suñu njëbal ci Cheikhuna Cheikhul Khadim di rafetlu bu baax sëñ Modibo invité bii mu ñu invité ci rajo bi defoon ko ñun daaw defaat ko ñun ren di rafetlu bu baax tamit ànd bi ñu àndaat ak yéen ñu seen kayit mi nga xam ne mooy porte parole fondation bi ak Serigne Mbacke Thiour mi yone di yore comité social di jiite Hadiyatu Rahma programme bi di ñaanal suñu taxa Bachir lool mu yàgg fi tey wér di ñaanal sëñ Mamour bi jiite diaspora bi mu yàgg fi lool te wér di ñaanal bu baax tamit mbokk yi ñu bokkal liggéey bi ci jëriñu fondation bi yëpp ki ca bopp ba suñu fàllu sàmb di leen ñaanal bu baax yàlla kàttanal leen ba suñu bëgg yëggal liggéey bi yàlla dimbale ni ñu àggale ko ci bàkk Seexul Xadiim di ziyaare mbokk yëpp rawatina mbokk soxna yi comme ni ngi ci rajo bi tey nag di ci jiital soxna moom mi seen foofu ci New York di ko siyaar bu baax di wax ne ko nañu jottali boobu nuyoo soxna jaare yëpp ndax ni ko sëñ kayita waxee soxna yi moom ku am taxawaay lañ ci liggéeyu Cheikhul Khadim bi ku am taxawaay lañ tam ci liggéeyu lislaam bi wax nga ñu nag question yu am solo li ci njëkk tamit te war nit ñi war koo fàttaliku mooy ñun ay taalibe lañu di ay jullit kon lii du assurance loo xam ne dañu ko def la pour dimbalante ko ci suñu biir la muy lu njëkk lu ñëpp war a fàttaliku li ciy boole nit ki nag mooy soixante dix dollars soixante dollars yi moom mooy mooy mooy wareef bi ten dala bi mooy membership bi muy soixante dix dollars at mu nekk defe naa ne loolu ku ko def loolu moo lay boole ci Hadiyatu Rahma bépp waajur tamit war na cee bind jabootam bépp xale bu am dix-sept ans programme bi da nga ci war a bokk ku ci bokk nag te am ay xale yoo xam ne ay mineur lañu soixante-dix dollars yooyu dalay couvrir muy lu am solo defe naa ne loolu mooy li nga xam ne moo la ciy boole bokk ci tam yomb na ndax ku def www foncab dot gov di nga gis ne di nga gis ne di nga gis application bi di nga gis application bi pour nga mën a régistré wu bokk googu nga ci bokk nag ba mu ëmbaale sa sa njaboot tax na tey jii fi ne ku nekk Sénégal wala ku nga xam ne sa parent dafa ñëw fii feebara fii kenn ñaanu ko yàlla dara dala ko fi koor boobu tamit dinañ ko yóbbu Sénégal loolu muy lu am solo muy sa waajur ses la fii dara dale ko fi dinañ yóbbu koor ba ba Sénégal xëy na nag parfois neexul di wax waaye ñun dañoo ne ci dëkk bi di fi dund kon foog ñuy xalaatam li nga xam ne daf ñu fiy fekk muy dee nag dund nag ak dee ñoo ànd te wax dëgg yàlla dañu fi yàgg def ci ay at kon war nañoo xalaat ñuy def ba nga xam ne nu ko suñ kay ta waxee ba heure bu ñu lenn lu fi lu fi xew ñu mun ñoo yóbbu ci sutura ak teraanga beneen bi ci topp mooy koo xam ne bokk nga ci Adiyatou Rahma nga dem ba Sénégal ndogal fekk la fa dinañ la jox trois mille dollars famille bi ndàmpaay beneen bi ci toppit képp koo xam ne tey jii bokk nga ci Adiyatou Rahma xam na am na ñoo xam ne dinañ bokk ci Adiyatou Rahma ndax bëggal dimbal nit ñi bokkaat ci yeneen yoo xam ne dañ koy def it pour bëgg dimbal nit ñi ndogal dal ci seen kaw am ñu jël en charge ci loola yóbbu koor booba Adiyatou Rahma dina ci doxe trois mille dollars ndàmpaay muy lu am solo képp koo xam ne tamit Adiyatou Rahma da nga cee bokk sa waajur nekk Sénégal nga ñàkk say waajur wala nga ñàkk sa doom wala lépp lu famille bu bu la jege muy doom ak borom kër ak soxna ak yaay Adiyatou Rahma dina la jox cinq cent dollars ndàmpaay donc muy point yoo xam ne yu am solo la ñuy xal ñuy wax tam ne Adiyatou Rahma dafa am date boo xam ne moom lañ koy ubbi mooy le premier mai bii la ubbi 2021 waaye am date bu muy jeex muy le 31 juillet 2021 muy ay date yu am importance yoo xam ne nit ñi buñ ko fàtte ndax loolu mooy tax nga mën a bokk ci Adiyatou Rahma ndax bu date yooyu jeexee dañuy clôturer programme boobu fondation Cheikh Ahmadou Bamba dafay dugg ci yeneen programme ak mu ne noonu lañ koy def Adiyatou Rahma dafa am opening date ak closing date ci biir Adiyatou Rahma tamit xam nañ ne bépp jullit bépp ku dul jullit kuy Sénégal ku dul Sénégal mën nga cee bokk ñooñu ci bokk nag te nga xam ne duñ ay jullit bu bu leen bu leen ndogal dalee tamit Adiyatou Rahma dina génne six mille dollars muy seen ndàmpaay ndax xëy na ñun Adiyatou Rahma dafa am noo xam ne noonu lay defee ki nga xam ne moo di jullit muy toppatoo ko ci funéral fom bi wàcceel ko ay kaamil loolu xam naa sëñ Mbàkke dina ci gën a dugg te ñu ànd ko ay kilifa yu ku mel ne sëñ Maamoor bu Washington ni leen yooyu yëpp donc ba dee budul jullit nag moom dañuy dekkee sa rek six mille dollars def ko def ko addiya ba koor ba mën a dem fa mu war a dem mu xam naa ne lépp loo xam ne daal matewu ci wax ci naa si mbàcc dina ko complété mais xam naa ne Adiyatou Rahma ku ci gën a war a taxaw rawatina ñun soxna yi nga xam ne ñoo la ci bor biir kër yi yore njaboot gi ñu def tuuba nga xale yi nga xam ne ñu ngi fi am lu ëpp 17 ans ñu fexe ba registré leen soxna yi fexe ba soññ borom kër yi ñu taxaw leen ndax njaboot gi ñun ñoo leen yor kon war nañoo farlu ba ñu registré suñu doom yi registré suñu bopp registré suñu borom kër yi ñoo ngi leen koy fàttali di ko fàttali suñu bopp di wax ne lii lu am solo la programme bi dafa am solo képp ku nekk ci Amérique war nga cee dugal sa loxo ñoo ngi wax ñëpp ñu taxaw ci bu baax a baax a baax di ko soññ suñu mbokk julli yëpp suñu mbokk tijaan yi bàyyiwuñ benn tarixa ñëpp nañu jàpp ci ci liggéey bi liggéey yàlla na liggéey sell bi xam naa ne suñ kayta dama lay delloo kàddu gi su amee lenn loo xam ne rek xam naa ne lu ci matadi la sëñ Mbàkke Tun dina ko dina ko dina ko mottali incha allah.
macha allah macha allah soxna Xadi jërë jërëjëfati rawatina soññe boobu nga def. tiitalit ci nuyoo yi ndax kër moom ku ciy dugg da ngay jaar ci bunt te nuyu nga soxna moomi seen li nga xam ni foofu it ci New York jigéen ñi fa ne moo leen jiite kon loolu lu rafet la New York it yàlla dogal na biñ defee statistique gu membre yi nga xam ni ñoo nekk ci hadiyatu rahma New York am na ci lim bu bare bare loolu it li muy wone rek mooy xam gu ñu xam njëriñul hadiyatu rahma soxna Xadi jërëjëf kon nit ñi rawatina jullit yi xam nañu te bég nañu ci ni lii kat du assurance waaye lii ndimbal la comme ni ko tur wi waxee ay bokki taalibe seq ko ay bokki jullit seq ko ay sénégalais seq ko di jàppalante ci seen biir ngir di waajal li nga xam ni moom yàlla dig nañu ko te du mooy muy kullu nafsin saayixatil mawt kon soixante-dix dollars la ci nit ki joxe noonu nga ko waxee at mi boo ko xasee joxe pare nga ci waaye mel na ni kon addiyatu rahma jàppul rek ni nit ki dafa nekk Amérique mu yem ci moom waaye soxna Xadi leeral na ko wàcc na ba ci njabootam waaye yemul foofu addiyatu rahma dana ko topp moom bu tukkee dem France bu ko fa loola dalee ni ñu koy toppatoo bi mu nekkee fii ci Amérique noonu lañ koy toppatoo dañ koy toppatoo ca fa mu ne moo xam France la moo xam Angleterre moo xam fu mën a doon ba yóbbu ko Sénégal waaye addiyatu rahma it yëmul ci moom ndax nit ku ne am ngay woy jur am nga njaboot addiyatu rahma kon ndar na képp li nga xam ni moom mooy famille bi kon loolu it jàpp nañ ni lu lu am solo la jàppale njaboot la te it kenn ku ne daal war ngaa xam ni war nga cee mën a dugg ci bi ngay dund su ko defee da nga noppal sa bopp da nga suturaal sa bopp da nga noppal say waajur da nga noppal say bokk ya nga xam ni ña nga ca Sénégal waaye da nga noppalit say bokki taalibe wala sa waajur yi nga xam ni ñoom nga nekkal ba bis boo xamee ni loolu agsi na su boobaa mel na ni yow noppal nga ñëpp kon jërëjëf soxna Xadi xam naa kon bu ñu ñëwee ci sëñ Mbàkke moom dafay ubbil yi nga xam ni ñooy ñu war a def témoignage ndax noonu ñu ko waxee ren jii la ñu am ñeenti at quatrième année baa ngi nii te it am na lu fi jaar ci diggante bi loo xam ni ña ko dund war nañ cee mën a témoigner te ñoom seen témoignage boo koy seet sax moo ëpp solo ñun li ñuy wax ndax ñun li ñuy wax mooy dañu leen di xamal rek ni yëf yi demee waaye ñoom ñi ko dund ñoom seen wax mooy gën a taxaw kon sëñ Mbàkke noo ngi lay jox kàddu gi pour nga dugal ñi nga xam ni suñ fi amee ñu mën a témoigner.
waaw kay El Hadj Modou Keita Thiam jërëjëf jërëjëf ci kàddu yooyu mel ni sëñ Modou ba xam naa ni yaa yow yaa doon mën a monitor incoming call yi bu fekkee ne am nga kenn koo xam ni mi ngi ci ligne bi woote sëñ Modou nga boo nu ko mënee jàllalal bu ko defee mu présenté wu mën a wax. moom.
salaamaaleykum.
waaleykum salaam.
Mbacke.
waaw kooku.
Moustapha Guèye.
ah waa kay sëñ Moustapha Guèye Guèye Guèye ñoo ngi lay siyaare.
waaw mën mën na maa wax.
bisimilah bisimilah sëñ Moustapha.
waaw ñu boobu ba tey ñu ngi leen di ñu ngi déglu émission bi wax dëgg yàlla moom solo lool. di wax salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi déglu ñu ngi leen di siyaar di siyaar suñu kayita. di la ziaral sëñ Mbàkke di ziaral soxna Xadi bu baax muy témoignage mu ci bëggoon a def rek ndax addiyatu rahma moom yaakaar naa ne ba mu tàmbalee ba tey man maa ngi fii Moustapha Guèye laa tudd maa ngi fii ci Memphis Tennessee ba addiyatu rahma ba tey tàmbalee ba tey ñu ngi ko ànd ak sëñ Mbàkke cun moomu di liggéey liggéey bu rafet wax dëgg yàlla man nag dama ci am expérience ndax sama mag ji nga xam ne ñu koy Fallou Guèye mu ne la woon fi ci mois de février yàlla def mu génn fi àdduna ndeysaan mu génn àdduna dem Sénégal ma wax ko waa addiyatu rahma wax dëgg yàlla ñu taxaw ci taxaw bu rafet ndax trois mille dollars yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne dañ koy jox képp koo xam ne bokk nga ci addiyatu rahma nekk fi ci Amérique boo fi bàyyi ko dem Sénégal dañ la ko jox waaye bi yàlla defee moo leen ci saa si même même pas ñaari fan ñetti fan bi ñetti nañ trois mille dollars yooyu jox ma ko biñ ma ko joxee ma fexe ba ba famille ba famille Fallou ji mu jot ci kon muy loo xam ne rek lu am la ñi nga xam ne nag maanaam New York kooku bari naa fa ay wëllëri yoo xam ne xam naa bu ñu déggee sama baat man la Moustapha Guèye nekk fi ci Memphis nekkoon ak ñoom foofu ci New York li nga xam ne daal moom laa leen soññee mooy addiyatu rahma bi nañ ci dugg
nañu bindu te xam ne lii day loo xam ne mënut a ñàkk ndax maanaam dee moom day loo xam day bette toujours luy bette lay doon te comme ci fii lañ ci Amérique gi lañ dëkk nañu fexe ba bokk ci ba nga xam ne buñ fi jógee duñu sonal kenn ndax nga dégg programme boo xam ne dañ ne soixante-dix dollars la ñuy laaj képp ku fi jógee mu topp tool yóbbu la Sénégal nga mën caa dugal soixante-dix dollars boobu ëllëgee boo fi jógee ñu mën laa topp ko sutura yóbbu la nga ne duma ci def sama dërëm ba yàlla dogal loola nga bëgg a sonal ñi nga xam ne ñoom nga nekkal loolu mën naa ñàkk kon daal ñi ngi ñaax ñëpp ñu dugg ci am na tam yeneen ñetti cas yoo xam ne amoon na fii ci Memphis ndax am naa fi ñett ñoo xam ne seen waajur daa génnoon àdduna bi ma woowee Adiyatu Rahma wax leen ko ñoom ñooñu ku ci nekk jox nañ la cinq cent dollars kon mii loo xam ne daal lu am la ndax man maa ngi ci biir boobu ba tey maa ngi ci FONCAB depuis cinq ans ngi nii FONCAB Memphis gii ci lañ bokk ci waa FONCAB may liggéey ak ñoom te lépp luñ ma sox def nañ ko kon New York ñu ngi leen di soñ bu baax di leen ñaax Adiyatu Rahma ngeen participer ci lépp lu ngeen mën te yàlla rek a tax ci barke Cheikhul Khadim waaw baax na jërëjëf témoignage boobu rek laa bëggoon def jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf ci témoignage yoo xam ne yoo yi nga xam salaamaaleykum. asalaamaaleykum.
salaam.
Mbacke.
waaw. kooku.
sëñ Fallou Diop sëñ Fallou. Fallou kon.
eh, sëñ eh, sëñ Fallou Diop ñoo ngi lay siyaare Cheikh Mamadou Fadel ñoo ngi lay siyaare.
maa ngi ziare sëñ Modou Ba vraiment di ziare Baye Mbacke yow bu baax a baax di ziare El Hadj Mourou Thiam porte parole fondation Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye itam di ziare Soxna Khalit Sall boobu ba léegi ñu ngi leen topp ñu commencé ba léegi ci li am solo li nga xam ne moom ngeen di waxtaanee muy Hadiyatu Rahma ak kaddu ku tedd kooku muy sëñ Mountakha ñu ko fi ñaanal rek mu daal di fi gën a yàgg gën a wér ndax njariñ la ci li nga xam ne moom wax dëgg yàlla amoon nañu chance toog ak El Hadj Mourou Thiam foofu ci Touba Mbacké ba sëñ bi jënd woon kaddu yu mel noonu nga xam ne njariñ la njariñ lu am solo loo xam ne waxoon nañu bind ko ba fondation yi bind ko ñu war ko wasaare ndax Cheikhul Khadim day moo waxoon ne wallahu yanzuru ni wal xalqu tatbawu ni fil bahri wal bahri za nafrin bila dararin foofu laa koy indi même sax bu fekkee ne wax dëgg yàlla jëriñoo sax Hadiyatu Rahma te kenn bu ko jëriñoo da nga ko bëgg a def sadaxa alquran mi ngi wax sëñ Mbàkke masalu lazina yunfiquuna amwaalakum fi sabilillahi ka masali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sundalatin habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa'u wallahu waasi'un aliim kon loolu yàlla loo koy fay ndax mi ngi mel ne nga def benn bu baax suñu borom fay la ci yiw bu bëree bëree bëri bëri boo xam ne wax dëgg yàlla doo xam njëriñ la fa mu nekk ndax da nga ci dimbali doomu aadama même boo ko utilisé wul nga xam ne loolu dalay fekk yàlla na yéex boo si boo demee ba nga xam ne yaa ngi nekk ci kër gu dëgg nga suñu borom fay la ko waaye suñu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ñu wax ci alxuraan inna lazina amanu wa lazina haajaru wa jaahadu fi sabilillahi ulaayika yarjuuna rahmatullahi wallahu xafuur rahim ñi nga xam ne dañuy spendre ci in the way of Allah ci yoonu fi sabilillah ci yoonu yàlla rek te lii mënu koo weesu nga ne ah man day am na loo xam ne dañ ko war a booloo def ko mu nekk njariñ loo xam ne bu njariñ loolu bu ñëwee rek fitna yi nga xam ne moom ci daan am comme ni ngeen ko indee ak sëñ Mbàkke mi ngi indee historique Hadiyatu Rahma ak ñi nga xam ne sëñ Alaaji Mamadou Kab Caam Kayte ni ngi ko indee ak lépp loo xam ne dañ daan am ay ay Modibo yaa ngi dégg mu koy wax ne day di dañ daf ñuy empêché ñu jël ay mbuus di wër di wax ne diw jógee na fi wala diw am na problème socialement mel lañ ci def mais lii dafa nekk loo xam ne dafa ànd ak pragmatisme ànd ak sens organisation ba nga xam ne wax dëgg yàlla cinq dollars par weer la muy soixante dollars par par par année ak dix dollars membership mu soixante dix dollars nga xam ne même boo ko utilisé wul xëy na ki nga xam ne moom nga utilisé liggéey nga fa suñu borom loo xam ne da ngay dala koy fay saa su ne kon ñu war cee góorgóorlu man nag bénéficié wu naa ci sama baay El Hadj Sidi Diop bi fi génne àdduna jox nañ ma ci cinq cent dollars waaye te comme man maa woowee Chicago Chicago am na El Hadj Fallou Gueye nga xam ne ci daayira fii Chicago la bokkoon ci temps Covid bi génn na fi àdduna li nga xam ne moom lañ ko waajalee ba denc ko fii alaaj Adjot Rahma moom moo ko warul waa waa waa waa Chicago mu presque toll ci sept mille dollars yu manqué tuuti ñu denc ko ci sutura ak dignité ak lépp kon Adjot Rahma mi ngi noonu wax dëgg yàlla defe naa ni képp ko dégg ak foo mënti nekk rek war nga cee mën a participer wu dañ joxe li nga xam ne fa la ñu war a mën a registré woo ngeen registré seen doom ngeen registré seen njaboot yoo xam ne am nañu 17 ans wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ne day sax te du deñ mooy lan mooy xéewal yi nga xam ne moom moo ci nekk waaye tamit ndimbal li nga xam ne moom moo ci nekk te ku nekk da ngay dimbal sa morom kon ni ko alaaji Mamadou Thiam waxee mën nañoo jaamu yàlla ci jaami yàlla yi kon sëñ Mbàkke du ma guddal parce que xam naa ne line bi fi mu nekk nii am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi fi waaye tamit di jaajëfal encore une fois de plus sëñ Modou Ba allo Dakar yi nga xam ne toujours bu ñu ñëwee dañuy yaatal bu baax a baax pour ñu mën a passer le message incha allah yàlla ñu tànn see taw feex sëriñ bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp amul xaj ak seen amul murit amul tijaan amul xaadir amul dara même ki nga xam ne Sénégal la wam boo nekkul Sénégal la sax nekk ci ñi nga xam ne les états environnants yooyu yëpp am nañ programme bi nga xam ne design nañ ko teg ko képp ku ci bëgg information sëñ Mbàkke ki ñu dana la ko jox soxna Xadi Sall dana la ko jox sëriñ Mamadou Thiam Kayte wala sëñ Moustapha Gueye bi nga xam ne mu ngi soo génn dana la ko jox kon ki nga xam ne moo nekkoon ci kàddu gi di wax maa ngi jéglu guddaay mooy sëriñ Fallou Diop mi nga xam ne moo yore Foncab TV ak Foncab rajo di jàllale xibaar yi mel noonu fii ci fondation Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.
waaleykum salaamaaleykum.
waaleykum salaam. kooku.
man la Ibrahima Ndoye Oklahoma.
bismillah sëñ Ibrahima.
waaye jërëjëf damay doore ab nuyoo di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci plateau bi di sama ay jëwrin Baye Mbacke jiite comité social soxna Xadi sama sëriñ sama jigéen jiite soxna yi ak sama jëwrin sëñ Kayta ñu ngi leen di ziar ak sama jëwriñ sëñ Fallou di rafetlu nag waxtaan wi ci li fi jot a jàll yëpp ndax macha allah indi ngeen ci ay leeral yoo xamante ni képp ku ko dégg dana ci mën a jariñu lu bare bare bari xadiyatu rahma nag wax dëgg yàlla yàlla dafa def man bi ñu koy door ma bokkoon ci liggéey bi ba tey jii yàlla def na ma nekk ci secrétariat général bi jiite ko nekk ci intérimu sëñ Mouhamadou Lamine Mbaye di ko sant nag moom it tey sant jëwriñ sëñ Fallou Samb ci li nga xamante ne doxale nañ ko ba léegi ak yow Baye Mbacke mi ko jiite xam nañ lépp li ngeen ciy daj xam nañ lépp li ngeen di def ngir askan weeg taalibe yeeg jullit yeeg maanaam doomu aadama yi ñëpp jariñu ci programme bi nga xamante ne nii man xéewal laa koy tuddee ndax kat ñun ay doomu aadama lañ rek nag te loo xamante ne nii wax dëgg yàlla xamoo kañ la naka la fan la danga koo war a mën a waajal ndax liñ fi daan mas di gis bu fi kenn jógee ñu koy ketal di ko laajal muy jël temps hadiyatu rahma ñëw daal di làmboo sutura ci ñëpp ñi nga xamante ne ni bénéficié wu nañ ci man nag comme ni ma leen ko waxee programme bi bi ñu commencé bokk naa ci xam naa ko ni ñu ko doon defee ni ñu commencé lépp waaye daanaka bi may xam hadiyatu rahma dëgg dëgg dëgg dëgg dafa fekk ndogal dal ci ñun fii ci Oklahoma fii ci Oklahoma City moo tax ma gën a xam porte bi nga xamante ne nii hadiyatu rahma xam na ko ak sutura si ci ne ak dimbal li ci ne kaa bi may wax nag dafa doonoon kaa bu doy waar bu tiis boo xamante ni dafa ñëwoon dal suñu kaw muy koo xamante ni jeune la xale la donc tey ji programme bi buñ ci wax tey jeunes yi ci wërëb ndax ñu ngi ñaan sans borom képp ku ci tàbbal sab dërëm yàlla boo ko yittewoo ndax ku sañoon da ngay ñaan yàlla la nga bëgg mu defal la ko nga dem ba Sénégal mu yeex lool te yàgg lool nga defee ko fa waaye nag ay doomu aadama la comme ni ma ko waxee woon rek kenn xamul fan la kenn xamul kañ la kenn xamul naka la te it ku ko yitte woowulu ji comme ni ko sama jëwriñ suñ fàllu waxee sadaxa day daal di ñëw sarax lay doon ci képp koo xamante ne nii jël na ci loola dimbale ko ci programme bi ci li muy doxee ñun nag su kaa dañuy am benn kaa benn jeune boo xamante ni ñu tudd Ousmane Sall nekkoon fii ci Oklahoma Ousmane nekkoon koo xamante ni jàmbaar la woon lool macha allah koo xamante ni woon ni li ko fi indi woon rek moo ko ñoroon muy am njàng Ousmane sama borom defoon na ba mu am doctorat ci jàng ba fam bala mu war a def di liggéey di góorgóorlu nekk ca lam war a ne waaye ndogalub yàlla moom bu ñëwee rek kenn mënu ci dara keroog bi may dugal Ousmane di ko inscrire man moom damaa saxoo comme ne programme bi am na solo daanaka dama koy imposer nit ñi damay jóg taal sama oto dugg ci liggéeyukaay yi dugg ci kër yi fëgg leen bind leen daanaka dama leen koy forcer comme ni ma ko waxee ñoom ñu bind waaye keroog bi nga xamante ne nii damay bind Ousmane dafa fekkoon ma jóg dem ci benn bërëbu liggéeyukaay boo xamante ne nii keneen laa ko doon fekk pour bind ko ci hadiyatu rahma ni ñu toogee mu may jox hadiyaam maanaam soixante-dix dollars yi Ousmane daal ne jamet dugg ci biir liggéeyukaay boobu ñëwoon fa amoon lu mu fa soxla ma ne ah waaw yow de yàlla la indi ma ne ko yow de yàlla la indi Cheikh Ousmane man de damaa nekk di def yi fi kii rek di di di di sonal gars yi pour ñu bind ci hadiyatu rahma ma bañ a gàttal daal di ko koy expliquer lépp lépp lépp lépp mu ne ma ah waay loolu kay man dama ciy bind loolu moom moom insha allahu rabbi dama ciy bindu léegi xaaral ma ñëw jox la soixante dix dollars làmb ndeysaan ne ma fii de yoruma fi soixante dix dollars waaye dinaa la jox soixante dix dollars ka ma ñëwoon di seet di ko bind moo yëkkati soixante dix dollars ak soixante dix dollars am joxeel Ousmane ne ah Ousmane yow kon baal ma joxeel la fii saa yoo lijjantee rek su ma la gisaatee nga jox ma noonu laa bindee Ousmane Sall ci addiyatu rahma bi ñu demee ba ci biir ndeysaan yàlla ak dogalam ba feebar dugg mu doon lu bett yépp nag mu entre ko hôpital ñaari fan la fa am sans borom daal di def la ko soob jaaxle gu bari daal di dig dugg wax dëgg yàlla ci ay mbokkam ya nekkoon Sénégal ndaxte wax dëgg yàlla amuñu woon koo xamante ni nii xamoon na directement li xew te ñoom ndeysaan ñi nga doon jaaxle ci li koy indi nan lañ ko war a defe moom ci yan circonstance la faatoo maanaam daal ak lënt goo xamante ni dafa metti woon ci ñoom waaye yàlla sunu borom def ma daa di jot nijaayam nijaayam ci ma ko jotee ñu waxtaan ma ne ko ah ñun dey yàlla defal nañu sutura ndax xam naa ne yéen seen seen problème dëgg moom mooy nan la ñuy def ba indi Ousmane nan la ñuy def ba rob Ousmane te fii kenn daanaka nekku fi ma ne ko nag sama borom de def na Ousmane mii dafa bokkoon ci programme bu ñuy wax hadiyatu rahma ma expliquer ko ni mu demee ma ne ko fondation Cheikh Ahmadou Bamba moo doon doxal programme bi képp ku ci tàbbi bu la fi yàlla jëlee ñoom hadiyatu rahma moom mooy lijjanti lépp ba yóbbu déew bi Sénégal jébbal ko ay mbokkam keroog sama téléphone ak moom daa mujj sax dagg ndax wax dëgg yàlla dafa yéeme ba mu ba mu génne ay ay ay ay xéewal ci téléphone bi ndax loolu lu ko bettoon la ndax loolu lu mu xamutoon la ndax loolu lu ko lu leen wàcceel ak njàqare la ak ak ak ak lay lënt lënt ma ci nag di sant bu baax sëñ Baye Bàkke ci taxaw bi ndaxte diggante boobu jàng naa ci donte ci biir programme bi maa ngi ci woon jàng naa ci loo xam ne nii ci hadiyatul rahma bu loolu amutoon du ma ko xam mën naa ne la certificat de décès bi sax ñun suñu yoon nekku ca funeral home ba nekk New York ñoom ñoo def lépp a ba z ba ba ba lijjanti certificat de décès bi ba lijjanti tey tey Oklahoma ni mu soree lijjanti lu ko jële fii Oklahoma yóbbu ko New York ca funeral home ba waa funeral home ba defal ko yëf ci jullit ñu nekk en concent en concertation ak Baye Mbacke waa daayira waa waa Fonkab tamit defal ko yëfi jullit wàccal ko ay jàngal ko ay xasida wàccal ko alquran ñu defar lépp macha allah yóbbu ko ba Sénégal jébbal ko ay mbokkam kon nag ba tey jii may wax ak yéen dafa am émotion boobu lu mu indi ba dafa maanaam ay mbokkam du ñu jóg ci du ñu woote tey jii di ñu sant di sant waa Hadiyatu Rahma di sant Foncab di sant xel mi doomu aadama yi am tey ñaan képp koo xam te ni mi ngi nekk ci Amérique nga dugg ci ba tey jii may wax ak yéen Baye Mbacke mën na maa seede kóllëre googu dafa continuer ci nijaay Ousmane Sall moomu muy sëñ Ibrahima ba dañoo def benn groupe boo xam ne ni tey ñu ngi ko tuddee groupe des amis de Ousmane ndax ay xaritam ak ñoom ñëpp ndeysaan dañoo jaaxle woon te Hadiyatu Rahma da leen a gindi donc di wax rek wax ji ne yëf yi du ci mag du ci ndaw comme ni ma ko waxee léegi rek li ci nekk moom mooy képp ku nekk fii ci àll bi nekk Canada nekk Amérique bokk ci lii dalaa war te nga matal critères yi ci bokk bokk ci lii dalaa war ndax kat man ñii nekk fii tey jii bu loolu amee te kenn te te kooka ñaan ñu ko yàlla te kooka binduwul Hadiyatu Rahma lépp ci man lay ñëwaat ak ci communauté bi ndax kenn du ko seetaan kon nag damay ñaan képp koo xamante ni nii yaa ngi ci Amérique tey dégg wax jii ñuy wax nga def lépp li war ba bokk ci bii programme ñoo ngi ñaan comme ni ma ko waxee rek yàlla bu nu ko yittewoo teyit buy amit yàlla na yeex lool teyit yàlla nu fekk fa nu bëgg ñu mu doone fa waaye doomu aadama doomu aadama la kon nag na ci nit ñi jàpp ku ci dimbali ko da nga ci dimbali sa moroom loolu daal laa amoon ci ay baat yu may wax di jéggulu waaw lépp li ci dëng nag ci man la li ci des moom wax dëgg yàlla sama kilifa yi leeral nañ ko jërëjëf macha allah Cheikh Ibrahima jërëjëf li ngay wax lépp man de seere naa ko mën naa koo seere maag yow ñoo ko àndandoo woon kon li ngay wax lépp lu lu lu lu am la lu dëggu la ni nga ko waxee it noonu la demee jërëjëf jazakallahu xayran ah kon rek porte mbir maa ngi noonu témoignage yaa ngi noonu line bi it xam naa ne dina open ku bëgg a woote question mën ngaa woote laajte question boo bëgg a laajte ñoo ngi santit sëñ Modiba porte parce que porte parole parce que sëñ Modiba may nañu enough time nee na ñu jël temps bu nu bu nu bëgg loolu léegi rek mi ngi may message di ma ko wax kon loolu moom it muy contribution am ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu bu sell la liggéey boo xam ne liggéeyal yàlla la kon sëñ El Hadj Modou Keita Thiam maa ngi lay delloo kàddu gi nga nga nga nga nga daal di indiwaat yeneen point ba ñëwaat ci ñun waaye njàngat mi moo di soxna Khady léegi da koy wax programme bi ñaa ñaari baat yi yu am solo programme bu inclusif la maanaam fondation bi moo ko concevoir waaye du ko ubbi ci ñëpp tout le monde amul benn tarixa boo xam ni tëj nañ tëjal nañ la ko amul benn nationalité boo xam ni tëjal nañ la ko amul jënn diine joo xam ne sax tëjal nañ la ko kon bokk rek muy programme boo xam ne bu inclusif la ñëpp leen ci invité ku nekk nga ci it leneen li ci toppit xëy na loolu ca cat la muy programme boo xam ne dafa impliqué xaalis xaalis souvent di mbir moo xam ne mu mu mu mu difficile la mu doy waar la surtout boo ko dee euh, gérer yàlla def na fondation bi da credoom euh, euh, transparence yi mooy la ci gën a euh, fés no li lépp lu ñuy def lu transparent la ci noonu lanu indi système u report financier boo xam ne bu clair la chaque ñetti semaine ñu- euh, chaque ñetti weer danañ génne report boo xam ni bu wanee flow wu xaalis bi nga xam ni mi ngi ci Hadiyatou Rahma liñ fi jotoon a dajale liñ fi jot a disburse ak li fi des loolu muy leer nañ ñu génn ko di ko jox jëwriñu fondation bi waaye di génn koy di ko jox ñu jiite association yi nga xam ne ay groupe lan ci lan indi waaye di ko yore ci ñu mu nekk public record boo xam ne ku nu woo ni ñu dañoo bëggoon report sàngam ci Hadiyatou finance di Hadiyatou Rahma ñu daal la koy jox ca saas ca saas kon nag loolu it ñu ci am fierté bu wér a wér wane ni fondation bi doxinam lépp transparence la kon El Hadj Keita Thiam damay bañ a fàtte soxna Xadi bi muy lim point it mi ngi wax am na boo xam ni bu am solo la boo xam ni da da da koo xaw fàtte mu di nit koo xam ni da ngaa nekk fii ci North America fii ci fii mbaa ci Canada bokk ci yàlla defoon rek nga tukki supposons nga tukki dem Europe yàlla jël la foofu Hadiyatou Rahma dalay topp foofu dala fay fekk ànd ak say say parents jël la ba delloo la Sénégal kon it rek loolu waaye nag ñu fàttaliku ni requirement bi moo di il faut nga résider fii ci North America il faut nga résider États-Unis mbaa Canada loolu mooy mën a tax nga bokk ci il âge bi il faut nga am 17 ans mbaalu ko kon ñaari point yooyu point yu am solo la yoo xam ni moo nekk ci ponki Hadiyatou Rahma Alaaji Keita kon sëñ Moriba may na la temps Hadiyatou Rahma ngoog équipe boo xam ne la liggéey boo xam ne la bànqaasi fondation bépp bépp bépp ko ngànk ñëpp kenn ku ci ne am nga ci liggéey boo ciy def kon maa ngi lay delloo kàddu gi nga bàyyi xel ci ligne bi képp koo xam ne bëgg naa woote laaj question nous restons à la disposition des auditeurs Alaaji Keita Thiam maa ngi lay delloo kàddu gi jërëjëf
jërëjëf ci sëriñ Mbacke Thioune mi nga xam ni moom moo jiite Hadiyatou Rahma noo ngi sant it mboolem ñi nga xam ni dugg nañu def ay témoignage muy lu am solo tàmbalee ko ci sëriñ Moustapha Guèye bu Memphis nga xam ni moom magam bu ñuy wax Fallou Guèye moo bokkoon ci Hadiyatou Rahma ba pare defe ko ca Sénégal Hadiyatou Rahma yëkkati li nga xam ni moom la bindoon ci këyit yi seq ko ak mboolem ku ci bokk respecté ko yëkkati trois mille dollars jox ay bokkam ngir ñu mën koo dëjël noo ngi sant it Serigne Fallou Diop bu Chicago moom mi nga xam ni it wax na fi wax yu am solo delloowaat nu ci diine waaye delloowaat nu it ci li nga xam ni mooy njëriñil Hadiyatou Rahma ndax lu sunu boroom gërëm la moom it indi fii ñaari nit ñoo xam ni muy sëriñ Sidi Diop ak sëriñ Fallou Gueye ñu defe ko foofu ca Chicago moom it la Hadiyatou Rahma séqoon ak ñoom mu def ko santaat bu baax nag sëriñ Ibrahima Ndoy bu Oklahoma moom it indi fi kaa boo xam ni yaram yi daw na ndax ndaw lu jàng ba am doctorat yàlla dogal ci fleur de l'âge ci la fi jóge ñu di ko wax Ousmane Sall ak témoignage bu pathétique bi nga xam ni nijaayam def na ko ak jaaxle gañu amoon ak lépp te yàlla def jaarale ko ci Hadiyatou Rahma ba lépp woyof kon loola li muy wone rek mooy ni Hadiyatou Rahma ndimmal la ci ñëpp ndimmal nag bu ñëwee lay tax nga mën a am ca ndimmal la da ngay fexe ba loola nga am fulla ak fayda def ko ndax nit daa war a bëgg boppam bëgg sa bopp mooy fekk loo xam ne wóor na la ni lii njëriñ la wóor na la ni lii nooflaay la wóor na la ni lii respect la ci sa dignité parce que yaa ngi dund mais wóor na la ni da nga dee ndax loolu dafa ànd ak doomu aadama nga waajal sa bopp nag ci bi ngay dund te la nga ca man ay nit a ngi bind testament ndax xam nañ ni luy ñëw la te xamuñu kañ la waaye ñun ñi féete bitim réew nga xam ne newuñu ca réew ma féete bitim réew lii tax ñu xam ni ñun ñii bëgg nañu suñu bopp bëgg nañu suñuy bokk bëgg nañu suñuy dëkkandoo mooy ñu noppal suñu bopp noppal suñuy mbokk noppal suñuy dëkk suturaal suñu bopp mu wóor na ni ñun ñii kat ku fi génn àdduna tam xel dina dal ci ni yow mi kat sonaloo kenn te loolu anam loo koy may soixante dix dollars te nit saa yu xëyee wala ñetti fan yu ne mu yàq lu ëpp cent dollars kon ni ko sëñ Ibrahima Ndoye waxee maanaam warteef la obligation la ci bépp nit boo xam ne yaa ngi utiliser sam xel pour nga bokk ci hadiyatu rahma bu yàlla dogalee jittewoo ko ndax loola ñëwul ca yow waaye ku fi jóge bu ñu ko teg buñ buñ ko yóbboo rek na la wóor ni yow saw ñàkk dem na ca te tuyaaba jooju xamoo foo koy waxe kon ñoo ngi woowaat ñëpp di leen mettre devant leur responsabilité pour ñëpp bokk ci ndax du assurance te it lu yàlla gërëm la kon soññe bi du du doy ndax ni àdduna deme waaye lu war la lu baax la lu jaadu la te lu nit ku nite war a def la kon sëñ Mbàkke ñëw nga yit ci soixante dix dollars yi bu ko nit ñi joxee wax nga ni mbirum transparence ñetti weer yu ne dina am rapport boo xam ni rapport périodique lay doon ñu wax li dugg ci hadiyatu rahma waxit li nga xam ni moo ci génn waxit ca ñañ ko jox kon loola jàpp naa ni lu leer rek la mën a doon waaye jëlele naa hadiyatu rahma waaye fondation Cheikh Ahmad Bamba doon nga ko waxee credo la principe la ci biir fondation bi lu fa mën a dugg ak lu mu mën a doon ci yeneeni branche ak yeneeni loolu des koy leeral ndax lanu boole mooy liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal Serigne Touba dafay sell ci lu sell nga koy def waaye liggéeyal Serigne Touba it da nga koy def ci di jël sa alal di ko def ngir yàlla ndax amu ci kenn ko am salaire amu ci kenn koo xam ni dañu fondation bi liggéey ñetti weer yu ne bu du woon mbas mi ñetti weer yu ne dañuy dem ci benn état te kuy dem ku ne yaay jëlal sa bopp sa billet avion yaay fayal sa bopp sa hôtel yaay dawalal sa bopp bu fekkente ni da ngaa jël sa oto def ca sa essence def ci sa lépp ndax nun lenuñu di naan dañuy liggéey di ko fret mu jiituñu nu xam ni kin koy defal mooy sëriñ bi kon lu sell la bëgg te it tooli àllarba la aw ñàkk la laaj liggéey ba mu lew nga def ko ci la laaj kon loola it en dehors de hadiyatu rahma loola dafay loo xam ni mooy cëslaayu fondation bi te ñi ci nekk ñëpp it xam nañ ni loolu la ñuy liggéey ci fondation bi fondation bi amee lul kenn paax fondation bi amee lul kenn hôtel nga ne fa mu di la mu di mu di la ko fayal te ñetti weer yu ne daañu déplacé wu àllarba ju ne daañu bàyyi soxla yi comité exécutif bi nekk ci ajjuma yenn yi jëwriñ yi daje comité yi nag moom ña ngay daje ñoom it semaine bu ne kon day wane ni fondation bi ab liggéey la ay coono la don de soi la joxe xaalis la joxe sa jot la waaye liggéeyal sëriñ bi ak xool loo xam ni dana jëriñ mbooloo yi te loola ñu di ca xalaat ak di ca dox ngir di ca wut ngërëmal sëriñ bi yàlla na ko sëriñ bi defal kon sëñ Mbàkke bu fekkente ni amul yeneen nit ñu dugg pour def témoignage dañuy ñëw rek kon ci lii nga xam ni moom mooy présenté ñi ñuy déglu ñëpp li nga xam ni mooy fondation Cheikh Ahmad Bamba noonu ñu ko waxee fondation bi dafa dajale ay daayira daayira ku ne xam na ni mbooloo la moo xam ni mu nasu la ba pare kon fondation bi daa fekk ay mbooloo yu nasu mu dajale leen ngir li ñu bokk ñu mën a gën a liggéeyal sëriñ bi pour plus d'efficacité jëwriñ ji nag mooy sëriñ Fallou Samb féete fee nga xam ni moom mooy Detroit ka topp ca moom di sëriñ Pape Fall féete fee ca Raleigh North Carolina ñu am sëriñ Babacar Diouf bi nga xam ni ma nga féete fële ca Canada nekk directeur of board trustee ñu amit secrétaire général muy Lamine Mbaye te yàlla dogal jamono yii mu demoon Sénégal te nga xam ni moo ko wuutu di sëriñ Ibrahima Ndoy bu Oklahoma waaye ñu amit nag comité yi avant comité yi ñu am commission finance te Serigne Khadim Cissé bu Atlanta jiite ko lu amit commission yi muy comité yi wàllu social Serigne Mbacke Thioune bu Philadelphie jiite ko commission culturelle muy organisation Cheikh Ahmad Bamba Day yi Serigne Maysa Diop bu Detroit jiite ko ñu amit li ñuy tuddee IT Sëriñ Mamoun Ñang bu Dallas jiite ko ñu amit li ñuy tudd Foncab rajo ak ak TV Sëriñ Fàllu Jóob bu Chicago jiite ko ñu amit li ñuy tuddee Women Committee Soxna Xadi Sàll bu Atlanta jiite ko ñoom ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi mu Youth Committee Sëriñ Mbàkke Seen bu Houston yaakaar naa Houston la moom it jiite ko loola dèjà boo ko déggee ñu amit nag li nga xam ne mooy éducation jàng ak jàngale jëm ci li nga xam ni moom mooy alxuraan waaye jëm ci li nga xam ni it mooy njàngaleem Sëriñ Touba Sëriñ Moustapha Diop bu Dallas jiite ko seen mbokk seen mbokkum taalibe seen dongo fondation bi bu liggéeyee ba pare wala mu bëgg a jox jottali ab liggéeyam wala lam ca bëgg a xamle ñu jox ko Mamadou Thiam di seen porte parole nekk fii ci Cincinnati kon lii mooy fondation Cheikh Ahmad Bamba boo ko déggee rek ci composition bi ak ci dëkk yi ngay dégg da nga xam ne lii ay mbooloo la yu daje fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa fas yéene ànd waaye fas yéene jëriñ te ni mbokki taalibi te ni mbokki jullit te lii nga xam ne mooy hadiyatu rahma li nga xam ne dox nañ ci ba indi ko maa ngi fàtte li ci ëpp solo muy Sëriñ Fàllu Silla bu Detroit yore membership nga xam ni kenn ku ci ne ba nga joxe sa soixante dix dollars ba pare it fondation bi warlul na la carte de membre loola Sëriñ Fàllu Silla bu Detroit moo ko jiite kon lii lépp li muy wane rek mooy bokki taalibe yoo xam ni daje nañu mënoon nañoo yem ca seeni daayira waaye gis nañ ni mbooloo mooy doole xam nañ it ni daayira bu ci ne am na ay spécificité kon daayira yi bu ñu dajee ci biir fondation bi kenn ku ne da nga jàng ca sa moroom kenn ku ne da nga xam ca sa moroom dañuy doxe waaye loolu lépp enrichissement la doon boo xam ni kenn ku ne boo delloo ci sa mbooloo partagé ko ak ñoom mu nekk loo xam ni luy avancé liggéey bi la Alaaji Modou Keita Mbacke Thioune dama la doon fàttali tuuti ni la bi ngay limit ci loolu am na am na loo xaw a fàtte ni rajo TV Moustapha Ka moo ko moo ko séq ak sëñ Fallou Diop waaye mu mel ni da ngaa xaw a fàtte it comité PR bi nga xam ne soxna Daba foofa na moo ko jiite ak it ak it comité organisation muy sëñ Fallou Thiam ànd koog sëñ Meysa Diop bi nga wax yooyu yooyu précision laa doon indiwaat ci mayit comité bi ma nekk maag sëñ Moustapha Gueye ñu ànd ko jiite ko muy comité social loolu ak daaray kaamil daaray kaamil muy comité boo xam ne bu rëy la dafay wàcce kaamil alxuraan ñaari kaamil semaine bu ne di ko def addi Cheikh Al Khadim ci biir kaamil yooyu la ñuy dugal ñaan képp koo xam ne sa waajur bàyyi koo na fi mu dikk ci ñun ñu dugal ci turam képp koo xam ne bàyyi woon na fi ñu dugal ko ci ñaari kaamil yooyu nga xam ne ajjuma ju ne sëñ Mamor Mbacke Washington di surtout Mamor Diarra mooy def xëtmu bi semaine bu ne kon précision yooyu laa doon indi bi nga dee lim comité yi nga xam ne ni ñoo ŋànk liggéeyul fondation Cheikh Ahmadou Bamba partout jërëjëfati jërëjëfati sëñ Mbacke Thioune moom dama xaw a sob rek waaye loolu yaa ko waroon a def ndax man comme kii mu ma kayit kii mu ma dara damay fàttaliku rek waaye loolu lépp li muy wane rek yaatal gi rek laa bëggoon ak nit ñi déglu xam ni lii ay mbooloo la ay dëkki dëkk yu sorante waaye ñoo xam ne ñoo bokk rek benn bëgg-bëgg muy liggéeyal Serigne Touba waaye ñoo bokk it benn yaakaar muy fexe ba jëriñ ñi ñu jamonoonteel ndax àdduna nit ñi kenn taxu fi jëmmi doomu aadama day tuxu waaye jëppi doomu aadama dana mën a des ci kaw suuf
kayta gis nga kenn matul kayta kenn matul fàtte nañu comité bu rëy di di comité kër sëñ Tuubaa ca Mara Ndiaye jiite ko ah ah sëñ Mara Ndiaye borom borom kër sëñ Tuubaa fu ne non nga dëgg de xam naa beneen yoon moom damay dama koy bind lépp dinaa fexe waa secrétariat jox ma ko ma ma ma yore ko su ko defee loolu mooy gën a mooy gën a mooy gën a kii kon loolu lépp li muy wane rek moo yaatuwaayu liggéey bi ak défi yi nga xam ni am nañu ko ndax défi bi nu am rawatina ñun ñu féete fii ci Amérique muy réew moo xam ni daanaka mooy réew mépp doole ci àdduna waaye mooy réew mi nga xam ni it liberté am na fi loo xam ni léeg-léeg sax mu frôlé libertinage te ñun ñu nekk fi nekk ay produits yoo xam ni suñuy waajur noonu noonu noonu tëgg ba nu man fee nekk nekk ci biir Amérique nekk fi ak suñuy njaboot waaye nun nu ëndaale fi suñu culture ëndaale fi suñu taalibe waaye doom yi ñu fi amee ñu jaxasoog ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi doom yooyu ay américain lañu ñooña am nañu loo xam ni lu leen lu leen particulier la muy culture bi nga xam ni fi la ñu juddoo ci réew mi war a mën a partager ak ñoom bu nekkee ca école ya mbaa ñu ne université mbaa ñu ne fu ñu mën a ne loola lu ci bari dafay nekk en porte à faux ak ñun li nga xam ni moom la ñu gëm wala moom la ñu bëgg a dund wala moom la ñu bëgg suñu njaboot mel kon loola bu ñu nekkee ñoom ci biir kër gi lañ leen di wax luñ ci dugal buñ génnee ca mbedd ma wala ñu dem ci école ba mën nañ caa dugal leneen lu bokkul ak loola te loola it la ñuy jànkoonteel guddi ak bëccëg te mel na ni nag léegi dañoo dëkk ndax nit bu demee ci dëkk ba am fa soxna am fay doom ba def fa ñaar fukki at wala lu ko ëpp kon xam na ni moom ganeetul waaye dafa dëkk te doom yooya lu bëgg nu mel ni nun te day jafe lool bu fekkente ni waajalul ñu moo waral fondation bi yëkkati li nga xam ne mooy éducation mooy jàng ak jàngale waaye jàngum alxuraan lañ ca jublu ak jàngaleem sëriñ bi waaye loola it fexe nga ba jiitu ci xale yi mu nekk ci seen dënn réew mi lu mu doy waar doy waar yàlla mën nañoo suturaal dimbali nu ba doom yooyu am loo xam ne laytaay lu laytaay lu lu am solo lay doon looloo tax fondation bi wàllu éducation mu fonk ko def ko kii boppam moom romb na sax ab comité waaye dañ koo def rek yëfi boppam sëñ Moussa sëñ Xaadim Bousso bi ne woon New York moo ko yoroon waaye léegi comme ma nga Sénégal sëñ Moustapha Diop bu Dallas bi ci def liggéey bu am solo ba fan yii rek war nañoo génne benn livre boo xam ne Serigne Touba ko bind waaye ñu traduire ko en anglais anglais boo xam ni bu riche la su ko defee sunu doom yi ñu man koy fexe ba ñu yor ko ñu di leen ko jàngal muy ca daara ya waaye ñu leen koy jàngalit di nafar ak seeni waajur ca kër ya loola dana nu dimbali ci li nga xam ni mooy sunu éducation yi doom waaye it lépp loo xam ne yaa ngi koy def te di ko defee ci réewum jàmbur te bitti ba li ñuy tuddee l'éducation de la rue léeg-léeg mu ëpp doole ak booleeg dëjëb yi nga xam ne moo am portable yeeg téléphone yeeg yeneen ak yeneen ak internet beeg yooyu yépp la cay tane wala mu kënt mooy nga fexe koo defe foo xam ni environnement ba day adéquat te environnement boobu nag mënu ci mënuñu cee am lu gën këri sëriñ Tuubaa yi te sëriñ Murtala tudde woon ko këri lislaam ba tax na fondation bi yëkkati liggéey bu am solo defi bu rëy muy jëm ci kër sëriñ Tuubaa fu ne nga xam ne sëriñ Mara Ndiaye mi jiite comité kër sëriñ Tuubaa ànd nañu ba te sëñ Muntaxa dem nañu ba mbul kayel fekk ko fa xamal ko ko wax ko mbirum këru Canada wax ko li ñu bëgg kër sëñ Tuubaa fu ne mu déglu ko ñaan ca wax ca lam ca wax da ngeen indi suufas Tuubaa ma ñaanal leen ci bu ngeen ko tàmbalee ci Amérique dana law fépp kon loolu it fondation bi yàlla defalati na ko lu mel noonu ci sëñ Muntaxa bañ ko waxee daf noo laajaat këru Canada gi kañ la ñu ni ko le 5 décembre waaye 5 décembre boobu plus de cent mille dollars manqué woon na ca waaye këru Canada ga ca 5 décembre booba lañ ca bëggoon lépp am na ba ñu fay këru Canada teg nañ ci këru Memphis matagul weer fay nañ kër ga ba mat def nañ ci lu ëpp soixante mille dollars waaye noonu lañ koy toppee par rapport ak programme bi nga xam ni kër Serigne Touba indi na ko ak seen i critères ak seen i lépp ak ña ca war a topp ak ña ca war a topp su boobaa it fondation bi mbir la moo xam ne ma nga ciy liggéey waaye day dem dans la durée bu nu ko tàmbalee tekkiwul ni noo koy àggale waaye sunuy doom sunuy sët waaye na nekk loo xam ni lu nu fiy nekkal faww lay ndax lii fi sëñ mun sëñ Murtala Mbàkke góor yàlla defoon sëñ bi tey ji jëmmam tuxu na waaye ab liggéeyam a ngi fi te mi ngi law li jëriñ àdduna di jëriñ sunu njaboot di jëriñ ñëpp kon fondation bi it dafa bëgg a inspiré wu ci Serigne Mourtala ba nga xam ni lu mu fiy teg lu ne du doon rek dale dajale nañu huit mille dollars dajale nañu dix mille dollars jëndee nañ koy xar jëndee nañ koy lii lekk nañ ko jàllaat nañ ci leneen loola dana am ndax berne dana am waaye dañu fee bëgg a teg loo xam ni danañu survivre ba daañu nekk ci biir bàmmeel lu yàgg loola continuer suñuy doom continuer ko jiw wa ak xéewal ya ci ñu fekk ci fa ñu ne kon nit ñi ñu xam ni fondation bi du ay poste du ay calcul déedéet du bëgg a siiw du bëgg gis leen waaye ku xool addiyatu rahma xam ni lii la ko xalaat ak li ko indi defu ko pour ñaari at defu ko pour fukki at dañ koo def bëgg muy yokk ba buñ fi newatul ñeneen yor ko mu nekk loo xam ne luy jëriñ humanité leneen noonu ca kër sëñ Tuubaa ya leneen noonu ca na fondation bi doxe kon ñu ngi ciy woo ñëpp bépp expertise fondation bi ubbi na ay bunt ñi fi nekk ñëpp Mbàkke Cuun ak sëñ Fàllu Sàmb ak sëñ Moustapha Diop ak sëñ Babacar Diouf ak mag ñu ci nekk Moustapha Diop ñu ci nekk ñun ñëpp li tax ñu moy li tax ñu teg ci sunu bakkan mooy dañoo gis ni bi ñu fi dalee nekk ba nëgëni man bokk naa ci ñi fi mujj a ñëw waaye am naa fi au moins ñaar fukki at ak benn xamoon naa it sëñ Murtala na mu taxawe woon ak na mu sonne woon ci bëgg ñu taxawal loo xam ni day day day alami li gépp di ciy ànd ndax booba maa ngi koy fàttaliku ndem si yàlla sëñ Mbàkke Ndiaye ñëw nañ fi 28 juillet ba bëgg a dem mu téye ñu moom Murtala Ndiaye ni du ngeen fi jógee tey mukk te taxawul ñu mbooloo moo xam ni mbooloom Amérique gépp lay doon booba maa ne ci toilette ni ko man day loolu liy tax ma man caa dugg mooy ma dégg ci làmmiñu sëñ Murtala mbaa ma gis lu mu bind signé ko te pari la ko Mor Samb fekk mu bind lettre ba lettre ba ba léegi mi ngi ak man ay copie yu bari la digle ni nanu ànd te ñu ko ñëpp xamee woon ca waxam ja wa tasimo bi abdillahi jamian wala tafarako lettre booba moo moo tax ñu dugg ca waaye moo taxit ñu nangi cee daj lu ne moo taxit ñi ci ne di ci sonn ngir bëgg loolee sëñ Murtala bëggoon ñu bokk ca ña koy taxawal ndax xam nañ ne dana am kon képp koo xam ne yaa ngi ci biir fondation bi moo xam ab daayira nga mbaa mbaa ngay individu isolé te bokk ci fondation bi na nga xam ne booloo gi ndigalul sëñ Murtala la waaye leetaram la bu mu bind signal ko boppam waaye na nga xam ni ci lu mu yàgg a dox la lu mu yàgg a wax la kon na nga xam ne bu ñu ko defee it loola mbégteem sëñ Murtala loolu dafay am solo pour nit ñi xam ko te xam ni it nag li ci fondation bi am benn mbooloo musu ko fee taxaw ba am ko ndax man bokkoon naa ci te ñu ko sos la organisation de confédération des organisations mourides ba lettre sëñ Murtala boobu ñëwee loolu lañ ci jëkk a taxawal New York bokk ca Chicago bokk ca état yi Detroit bokk ca Cincinnati bokk ca état yi baree baree bokk ca loola dem na ba MCA remplacé ko waaye nañ ko bëggee woon ni taxul ñu am ko ca confédération ba taxul it ñu am ko ci MCA waaye li ñu am ci fondation bi noo ngi koy sant yàlla tey ñaan yàlla dolli ko waaye mosuñu koo am ci benn organisation boo xam ni taxawal nañ ko fii ngir bëgg a boole état yi du caagee ni boole leen ci ab lim képp ñu naan am nañ trente neuf wala am nañu quarante ak Canada waaye dañoo ànd it ci tëral ni ñuy àndeek ni ñuy liggéey te lu ci ne buñ ko doxee nañ ko war a doxee muy nekk loo xam ne lu sëriñ bi gërëm la kon sëñ Mbàkke loolu dama ko bëggoon a indi rek ci fondation bi pour ñu ñuy déglu it xam lan mooy fondation Cheikh Ahmad Bamba ak lan mooy taxawaayam lan mooy vision lan mooy objectif am ak fi mu jaar nga xam ni ci ndigal la fi taxawee ak nañ te war a sonn ngir xam ni nun ñii kat bu nu amee di jàngi kaamil baa nu am ñuy marche sol suñuy yére wolof di yëkkati baatu laa ilaha illallah lanu ko may mooy góor yàlla sëriñ Murtada moom mais mais nu ko may nag moo digle nu ànd ànd bu yaatu ndax fekk na fi lépp fekk na fi Mika fekk na fi fondation bi ne woon Washington Muntaga Gueye ak Fallou Samb bu Sénégal ñooña nekkoon ca waaye teewul mu ni na ngeen ànd la Amérique gépp ànd kon fondation bi ca loola la ne kon ñu ngi ci woo ñépp murit nag bu ko wóoree ni amul ci àdduna ak ci àllaaxira ku mu yaakaar ku dul Serigne Touba ñun ñi ñu jamoon teeg doomi Serigne Touba te loolu faat na muy Serigne Mourtala mu digal lu nu dégg ci làmmiñam mu bind ci lettre signé képp koo xam ne da nga ni bu fi Serigne bu ma fekkee woon jamonoy Serigne Touba boo fekkee jamonoy Serigne Mourtala mu wax lii bind ko da nga xam ni lii kat lu ko ñor la kon da nga jël say ego da nga jël say yëfi bopp teg ko nële te def li nga xam ni mooy la Serigne Mourtala bëgg te xam ni na ngay amee loolu ci do ci Serigne Touba da nga mën a amee loolu ci doomi Serigne Touba. ngërëmal Serigne Touba da nga ko amee ci Serigne Touba waaye da nga ko amee ci doomi Serigne Touba te loola mën nan koo am rawatina bi nga xamee ni gisatunu Serigne bi ci jëmmam maa ngi ciy woon ñëpp di ñaan lépp loo xam ne seytaane moo ko mën a def ci dox diggante ay bokki taalibi bañ mën a jëfe la leen seenub sëriñ sant yàlla nanu sëriñ bi dimbali ba dindi seytaane soosu ba Amérique gépp Amérique gépp àndandoo doon benn di yëkkateendoo ak di tegandoo ba nga xam ne fu ñu fi yëkkati kër ak fu mu mën a doon ñu song ko te buñ ko songee daan ko jàll ci leneen mooy kër sëñ Tuubaa fu ne kon sëñ Mbàkke noo ngi lay delloo euh, kàddu gi te di leen jéggulu tey xam ni rek Modibo moom on ne le remerciera jamais assez ndax lii moom wone na ni moom xam na ni noo bokk yëf yi waaye it wone na ni ñi ñuy liggéeyalee sëriñ bi ci fondation bi moom it noona la nu maye ñu liggéeyal sëriñ bi ci biir rajo bi ndax lii kenn mënu koo am fenn waaye nag yàlla miy dëgëral jaam yàlla miy dimbali jaam yàlla na ko yàlla dimbali ba lii mu defal sëriñ Touba yàlla fay ko ko ci lu kawe njortam noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jéggulu amin amin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
amin amin amin amin sëñ alaaj Modou Kayta Thiam macha allah kaddu yi rafet na lool lool lool lool ca matale na c'était normal c'était nécessaire it ndaxte nit ñi yenn saa yi bu ñu indi programme bi dañuy jékki-jékki ni hadiyatu rahma ngi ñëw waaye hadiyatu rahma boo xamul fa mu jógee doo mën a comprendre exactement ni fondation bi doxee hadiyatu rahma produit fondation Cheikh Ahmadou Bamba la di FONCAB kon jaadu woon na nga leeral yow mi nga xam ne yaay porte parole fondation bi fondation bi ni mu tëddoo ak bànqaay ci nekk yëpp looloo tax wax dëgg yàlla temps bii mu jël ci lii rek lan ko mënoon a amee ci Modibo yaatal gi mu yaatal may nu lii kon it maa ngi lay joindre ci sant yooyu nga ko sant di ñaan yàlla fay ko barke Cheikh al Khadim kon nag léegi ñu nit bu nu abusé ci yaatal googu ñu bëgg a jox soxna Khady soxna Khady moom it defaat appel ci soxna yi wootewaat bu ko defee ñu daal di yëkkati jataay bi ba ba déwén incha allah soxna Khady bismillah
waaw jërëjëf sëñ Mbacke ñoo ngi sant nag bu baax a baax a baax ci kàddu yi ñu fi dégg yëpp rawatina yi ñu dee dégg ñu jóge ci porte parole suñ sayta di sant tam jëwri ñi fi jàll yëpp bàyyiwuñu kenn suñ faagay bu Memphis sëriñ Fàllu Diop bu Chicago sëñ Ibrahima Ndoy bu Oklahoma di rafetlu bu baax seen témoignage ak seeni seeni kaddu wax dëgg yàlla di di rafetlu bu baax tam liggéey bi di soññ bu baax rek ñëpp di sant tamit soxna yi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom liggéey fondation bi soxna Xadi xëy na dafa nekk ca bopp ba rek waaye liggéey bi liggéey bi ñu bokk ak ñoom ci biir fondation bi ñoom ñoo ko yore lépp lu fondation bi yëkkati programme bu mën ci doon ci addee Rahma di Kër Sëñ Touba fu ne di Covid 19 bi ni ci fondation bi taxawee ci mbokk taalibe ak mbokk julli yi soxna yi am nañ taxawaay bu am solo moo tax ñu leen di dollee di leen soññaat rek ci quatrième édition Adiyatu Rahma bi na ci ñëpp taxaw taxawaay yu am solo yéen daan taxaw ci liggéey bi ci liggéey Seexul Xadim bi ci liggéey yoonu yàlla bu mënti doon ñoo ngi soññaat suñu mbokk soxna yi ci jiite suñu bopp di soññaat bu baax tam waa New York di ko tegaat ci loxo soxna moomu seen bu baax a baax a baax di ñaan rek Modibo mu yàgg ñoo daral ci rajo bi yéen ñi jiite liggéey tamit yàlla jox leen kàttan nag man man ngeen yàgg ñu koo jiite Serigne Mbacke ak Serigne Fallou Samb mi nga xam ne moo jiite fondation bi ñoo ngi sant itam jëwriñ yëpp nag bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu benn jëwriñ ci benn état di sant bu baax rek di wax rek ne yàlla nañ ci dugg ci alhamdulilah rabbil alamin a génn ci ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin ñaan yàlla ren nag ñu am lu kawe suñu njort ñu am lu kawe suñu njort ci barke Cheikhul Khadim te képp ku ci def sa alal yàlla boo ko jariñoo yàlla nañ ci yàlla defal tawféex ak kay séer ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la delloo kàddu suñu mbàkke di wax rek asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
jërëjëf soxna Khady kon sëñ Modibo tey jii fondation Cheikh Ahmed Bamba of North America lënkale ay chapter yu bari fii à travers les États-Unis ak Canada ñoo ñëwoon fii ci rajo Allo Dakar di présenter édition deux deux mille vingt et un bu Hadiyatu Rahma pour rappel registration yi tàmbali na ñoo ngi ko tàmbali depuis le premier mai deux mille vingt et un dina dem ba le 31 juillet 2021 kon nga xam ni sëñ Mody ba loolu rek daanaka tegtal la trois mois régistration rek lanu lanu pare kon liggéey bi du liggéeyu aw koom bu ñu doon soxla koom mbaa ñu koy wut dañuy bàyyi Hadiyatu Rahma mu tijji toute l'année ay ca toute l'année nit ñaa ngi ñu koy laaj produit boo xam ne nit ñañ da nga ko soxla ku ci nekk nga ci laaj waaye responsabilité la ni ko porte parole di waxee responsabilité moo tax ñu yemale ko ci ñetti weer yooyu ni ñetti weer yi bu paree dañ koy tëj buñ ko tëjee ba noppi da ngay gis ku ne nit ñu bari volume mu appel day ñëw waaye mais mais dim leen ñu tijjiwaat leen tijjiwaat leen kon nga xam ne bu fekkoon ne problème mu xaalis rek la kon kenn du ko tëj kon dañ koy bàyyi muy dem rek at mu ne toute l'année les douze mois mais trois mois rek la trois mois pour trois mois la bu bu bu njawee soo tëj nañ ko ndax c'est c'est un programme très responsable il faut ñu man ko manage noo xam ne nu nu nu nu leer la il faut ñu maîtriser ko ba fi ñu ci bëgg a yegg ñu yegg fa kon Hadiyatu Rahma ngi noonu ñëw registration yi tàmbali na depuis deux mille vingt et un dina tëj juillet le 31 juillet 2021 kon xam naa ni suñ porte dama lay jox nga def closing remarque tëj kii bi ñu daal di tàggoog sëñ Modiba di ñaan suñu borom dimbali nu ba bu déwénee ñun ñëpp ñu fekke ko ba mën a bokkaat jataay yu mel nii di ko ñaanal mbokki jullit yëpp di ko ñaanal umma bépp nag kon sëñ El Hadj Modou Keita kàddu gaa ngi nag maa ngi lay jox nga tëj kii bi ñu yëkkati jataay bi salaamaaleykum wa rahmatullah
jërëjëf sëriñ Mbacke jërëjëf soxna Xabi jërëjëf sëñ Fallou Diop Chicago jërëjëf sëñ Moustapha Guèye Memphis sëriñ Ibrahima Ndoye Oklahoma jërëjëf soxna Xabi sëñ Mbacke day tëj gi moom lenn dong lay doon mooy santaat yàlla te di ko yalwaan di ko sarxu di ko dagaan mu yàggal fi sëñ Moustapha sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke te may ko kàttan may ko wér dimbali ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal borom Tuubaa mu amee ko nam ko bëgg te saa yu gestoo yàlla nu gis sëñ Muntaxa defal na fondation bi loo xam ni fondation bi yaakaaru ko woon te it séentuwu ko woon waaye nag Sëriñ Tuubaa mooy ki nga xam ni moo xàmmee ker ci guddi Sëriñ Tuubaa xam pastéef bi nga xam ni ak dogu gi nga xam ni ak yéene gi nga xam ni ak sellal gi nga xam ni ak bëgg ànd gi nga xam ni ak bëgg jox joxe ndigalul sëñ Murtala mi nga xam ni Sëriñ Muntaxaa Sëriñ Tuubaa ko xamal loolu lépp keroog ca tiit ba muy wax ci fondation bi bañ ko tegalee programme beeg li fondation bi def ba àgg dafa wax ni wax ji day moom rafet na matale na ba moom bëggu ci woon a yokk dara lool waaye nag li ko ciy doy sax mooy nañ ko bind muy ab téere ñu tasaare ko ci daayiri ci àdduna yépp ñépp mën cee jëriñu ndax bu dee soññe doy na soññe bu dee xam sëriñ bi te la ca ëpp solo doy na ci loola sëñ Muntaxa moo ko wax te loola mi ngi fi te du fi jóg te waxu ko ci sama jëmm waxu ko ci jëmmi kenn da koo wax ci fondation Cheikh Ahmad Bamba te keroog ba nga xamee ni wax nañ ko na fondation bi tëdd kon jàpp nañ ni en tant que murit waaye jàpp nañu it ni en tant que jullit fondation bi ku ci bokkuloo nit war nga cee bokk mbaa nga jéem cee xam baa nga pexe cee def ngir loolee nga xam ne moom la sëñ sëñ Muntaxa wax di xalifab Sëriñ Tuubaa loolee nga mën caa am nga mën caa am kon noo ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi noo ngi ñaan fondation bi tegu ci ndigal noo ngi ñaan fondation bi Serigne Touba gindinu noo ngi ñaan Serigne Touba gàttandu nu ak kattanam ak xéewalam noo ngi ñaan it Serigne Touba dimbali nu ba nu ami ndam te duñ ci gis sunu bopp santaat bu baax Modibo te di ko ñaanal ndam di ko ñaanal ak yokku ndax tey jii de defal na fondation bi loo xam ni dëgg-dëgg lu lu rëy la kon en tant que ay murit en tant que jullit nanu fas ci sunu xol te ñaanal ko rajoom bii li mu ci bëgg mu am ko te bu déwénee bu ñëwee mu mën na wax lu yokku ne bu lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Paul sëñ Modiba kon fondation Bangok ñu ngi lay sant di la gërëm à l'année prochaine incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah
Yeah.